di ci jiital sëriñ Sidi Mbakke muy xalifa sëriñ Amidou Mbakke di kilifa jotaay bi ñu koy ñaanal yàlla bu baax yàlla guddal fanam te yëggale bépp yéenéem donn jàmbaar dafa métti koo donn ñu ne sëriñ Amidou te moom mu boole woon yaari xilaafa donn sëñ gaawaan donn way juróomu tedd wa sëñ Modou Mamoun kooke kuñ ne lañ la mu yenn woon yow lañ ko teg boo ko yëgee boo ko yëgul teg nañ la lu diis a diis a diis tamit waaye yàlla na saa borom téeñal yéen boobu ba dara du la ci métti te nga yeggale ko fa nga ko yéene yeggale at mu jot nga ànd ak say bopp sagal Baay Mor yi nga xamante bi léppam da koo jeexal Daaru Salaam wax naa ko léegi ne ko ngërëm li ko tax am solo mooy lii la dal kuy laaj ngërëm lu mu doon kaay xool Baay Mor rek fa tabaarikàllaa ngërëm dana tax nga romb téeméeri at say tànk dëgër romb téeméeri at sëb gis leer romb téeméeri at yàlla téelu sama xel ba naaxoo ngërëm a koy waral ba ngay ndaw da koo joxoon nitu yàlla mu téel la ko ba ngay mag mu ànd ak yow léegu ngay mag gi doo tële doo naax yaay génn sa bopp ci kër gi yaa dugalaat sa bopp ci kër gi bés bépp yaa koy jiite di ko coordonné ñu ne fu say ak toog ñu ne téeméer at teg na loolu ngërëm a ko mën a mayee kon bu jeexalee tàkk dundam gi ci Daaru Salaam nga sagale ko nii nga ko sagale loolee rëy na lool te jekk na lool te bokk yëpp bëgg nañ ko di sant imaamu koñ bi ndax damay wax saa su ne ne barab boo ko lislaam moomee ñu la fa néegub yàlla te kenn du ca doon dara kul si man tabaraka wa taala ndax alxuraan moo ñu ko jàngal ba mu ne wa innal masajida lillaahi rek la ci teg kon yàlla ba ko moom ka fa doy julit ña ma ñu teg ko ca kanam koo ko fuutu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon imaam sa toogaay bi toogaay rasulullaahi sallallahu alayhi wa sallam rek lañ koy xoolee di sant soxna yi bu ñu tuddee soxna maam Jaañ mi toog di kilifa ànd ak njabootam gi mu àndal toog mën nañ koo barkeloo muy kilifa jotaay bi ñu sant waax soxna maam di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam moom jigéen ju mën góor la du ne wut waxul mukk su doon góor saa sooy bi ngi bay waaram ci tool bi di jàmbaar di borom pëstéef di boroom jëf di borom teraanga ñu bëgg rek sëriñ bi imaam dafay ñëwoon te ñuy sunuy gan ñu bëgg leen teral ak kàddu yu fi doon bëgg ko jottali ñu bëgg rek jébbal leen kàddu gi ñu jotal seen kàddu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi jiital nuyoo bi maa ngi jiital ci nuyoo bi waa kër sëñ Gawane ñi nga xam ne ñoo di sëriñu suñu mbokk mi Mouhamadou Gueye di leen teg seen seen bàccuwaay di bëgg lool ci daje ñoom fii alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin Mouhamadou Gueye mii di seen taalibe kenn la ci nun kenn la ci ñi sos dëkk bii ñi ko sos àll la woon moom Mamadou Gaye mi ci njiit ñi ko sos ci la bokk ñi ko jiite laa wax daf ko tey ba mu nekk dëkk bii nga xam ne foo toll ci senegal ci ba xam ci senegal mais ci àddina di yëg Castor mu nekk na ko nag suñu biir ku ràññeeku ku ràññeeku koo xam ne ku nekk bëgg nga bokk ak moom dara ku nekk bëgg nga koo jegeñ ban ne kii de dara la ci moom sëñ Modou Gueye baax na yéwén na jub na am na njariñ ci ñëpp am njariñ googu moo waral kii xam ne tey mooy chef de quartier bi fii ci ci ci Kasoor doom ma ngi ci biir kër kër Serigne Modou Gueye ki xam ne moo doon mooy ilimaan bi moo doon moo doon fi ilimaan a ngi fii ci xam ne moo jiite amical bi nga xam ne mooy mbootaay gi ëmb ñëpp doom mi ngi sëy fii ci kër kër Modou Gueye Modou Gueye ku nekk bëgg nga ku nekk bëgg nga xemmem nga mu nekk sa dara bala nga nekk daraam kon nga xam ne kon loola mele woo mu mel ki def ñi ki def fi moom bala ñi def fi moom te moom mooy waa kër sëñ ñëpp melo woowu ñu ngi leen gërëm di leen sant bu baax a baax mbooloo ñu ngi leen di nuyu ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si sant wa sallam ñu ngi nuyu suñu wajur bi toog bay Mor moo sëñ Moustapha la woon si moo sëñ Moustapha si bu sëñ Babacar si moom moom la woon ba suñu wajur bu Pape kii Dia bi fi jóge Doudou Dia bërka dem ma rek di léppam bu dee bëccëg moo moom rek wante yëpp ci baaxu bàyyi moor la rek moo àttal ñëpp yàlla yàlla fay ko yàlla suturaal ko moo xam moo lu mu bëggal ci boppam yal na yàlla defal téeméeraat yooyu ñuy wax yal na tegaat yeneen ñaar fukk juróom te ñu fekk ñun ñëpp yàlla nañ ko yàlla defal ñun affaire yi tijaan si la ñu nekk parce que ñu ngi nii dañu war a dem xadara te jot na ñu bàyyi leen ngeen continuer teraanga bi ñu doon indi ñu indi ko rek jox ko Baye Mor après yeewee loolu laa amoon lu ma si wax ngeen baal waaye demagu toog leen tuuti rek ndax ku indi kàddu warees laa dellooy kàddu te da ngeen di indi mu rafet lool ngeen di ko indil Baye Mor sëriñam toog kon war ngeen déglu sëriñ bi mu dellu leen ay kàddu ndax imam bu déplacé woo ànd ak jàkka ji ñëw fekk fi sëriñ bi joxe ay kàddu ak i na déglu sëriñ bi delloo koy kaddu ñu ngi leen di ñaan loolu. salaamaaleykum mbokk yi imam ci turu Baye ak famille bi ci ndigalul sëriñ bi ak bokkam yi mu àndal. Baye Mor nee na mi ngi lay delloo ak cant di ko delloo mbooloo mii nga xay ñoom ngaa dal ñépp nee na yow day yéen da ngeen a baax rekk moo tax ngeen ñëw tagg Baye Mor waaye li ngeen wax lépp ci yéen la nekk ndax Baye mii ku ko xam xam ab jubloom di nga xam ni fépp fu mu nekk nekk fa diir bi mu fi nekk ñooña bari na loo xamante ni ànd nañ ko ci bëgg muy bëgg lislaam bëgg yonent bi sallallahu alayhi bëgg ak bennoo te nee na loolu moom la fi fekk nee na mi ngi leen di sant ci loolu yi nga xamee ne sunu borom mi baaxee baaxe nag ko mu ñëw fekk ko ci yéen nekk ci ak yéen nee na mi ngi leen di ñaanal itam seenu bëgg te du dara lu dul sax ci lislaam di liggéey ci lislaam sunu borom defal leen ko te la nga xamante ni moom la sunu borom daale lépp sunu borom jotalenu ko nu barkeeloo ko ñun ñëpp Baye Mor ne na sant na leen ñëpp ñi fi nekk ak ñi fi nekkul jërë ngeen jëf seedeel na mbooloo mi fi nekk itam àndam gi nga xamante ni moom la ànd ak yéen te lépp rafet na nee na jërë ngeen jëf. kon yéen seen toogaay fii ne dafa mënatul yàgg ndax liggéey bi nga xam moom ngeen jublu kon nee na mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di yi jërë geen jëf ginnaaw loolu ñu ngi dellu dellu siwaat ci ndigalul Baye Mor ak famille bii fi daje yépp ci kàdduk sëriñ bi muy sëriñ siidi mii ak ñi nga xamante ne bi ñoom la àndal ñu bokk borom gaawaan ñépp dëkkandoom yi nga xamante ne ñoom la dëkkal ñu bokk quartier bi te li leen sunu borom sant ci dëkkandoor lépp ñu di ko matal bu mu leen santee nee na mi ngi ciy teg bokk yi nga xamante ne bi ñoo ay bokki bokkam ci ay dëkk yu fasantikoo yoo xay fenn fu nekk nit bàyyikoo na fa ñëw ci woote bii nga xay moom moo ko woote ci kaay leen jariñu nee na sant na leen bu baax ci ñëw gi ak ñëwin wi ba leen santee ba noppi nee na mi ngi dellu di sant njabootu boppam gii nga xay ñoom la nekkal ci kër gi muy Mamadou Gueye mii ak rakkam yi mu nekkal ci kër gi ñëpp nee na bu leen santee ba noppi mu ngi sant soxna yi ñu nekkal ci biir kër gi itam ndax déggal nañ ko te nangul nañu ko nee na bu sant sant yooyu yëpp nag ba noppi mi ngi sant ñooyu ñëpp nag ñu ànd ndoog moom santale ko sëriñ bii nga xamante ni bii mooy sunu yaakaar yi tey mooy sunu yaakaar yi ëllëg mooy sunu seede mooy sunu wéttandi ci sunu dal ak sunu yëngu muy sëriñ siidi mii te muy ku ko mat sëriñ siidi bàyyi moo neen ak cantam bi fi mu toll ci yow ab làmmiñam mënu koo tudd làmmiñu ku mu yónni it mënu koo tudd ndax lii waxoon nañ ko daaw waaye wax ko daaw waxati ko renit it du bari wax wax dëgg rek la bis bu yàlla sàkk ñu mu baamu Faatiha lu mat juróom juróom yoon ba muy ba muy juróom yoon nee na bis bii nii nga xam ne nii nga ànd njabootu sëñ Amidun gii ak sëti sëñ Muudu Maamun yii fi des yëpp di ci teew ak sëti sëñ gaawaan yii nee na taalibe bu nekk bëgg nga ko ca barab ba nga xay fa nga bokk waaye du ñëpp mën a maase di ko am nii nga mu ko amee moom ndax motul li nga ko matal nga ko siggal nga ko it te dimbal nga ko ndax yàlla dimbali la ko ba ay bokkam amul kenn ku la ciy naatable wala muy naatable ci sa rakk yi kenn foo ci mën di dajee nit ak foo dajee moom daan ko xam ni xam ni kii mooy nangami sëriñ Sidi Mbacké te loolu de yombul de loolu nag bu amee yéen yéen a ko dem ndax yéen a ñi meloo seen bopp nit ñi jóg di dem ci nit ñi di jaxasoo ñoom ba ñépp ma leen xàmmi xam sëriñ bi nee na jërë ngeen jëf ci yombal gi ak dimbal gi nee na itam. mënuta ñàkk ber ak cant jëmale ko ci sëriñ Muudu Baaxum mii ndax nee na sëriñ Muudu sëriñ Siidi mii mooy wasiilaam waaye nee na sëriñ Muudu mii mooy jëwriñam ne lépp lu muy jëf ci moom la koy roy te mat na roy waay bu baax nee na kon sëñ Moodu man day cant gi ma lay cant mënuma la koo fayee lenn lu dul ñaanal la ci sëriñ gaawaan men doog ak barkeb Cheikh Mor Fassé sa way jur wa saa yeggale la fa nga jëm te nga bañee dajeekum ndog fenn yaag ñi nga àndal ñëpp te defal ko mbooloom bi fi dajeem ñëpp ginnaaw loolu Baye Mor mbooloom mi nga xamante ni bi ñoo fi daje tey ñoom ñi ngi lay delloo ak cent ndax defal nga leen loo xamante ne bi yombul kon suñu nit yee war nañ koo xam ndax bis bu mel nii néewu ma amul de waaye day bare na bis boo ko tëkkaleel boo xaay boo dee ba ca biir dina am lañu ñu wuute te defoo ko ngir lenn lu dul dimbali ñii nga xamante ne bi ñoom nga bokkal askan bii nga xay ñoom nga bokk kon askan wi ameel nañ la ngërëm ameel nañ la cant ameel nañ ñaan sunu boroom yàggal la fi ñi ngi delloo sant di jéggalu di tënk foofu yi ngir jataay bi yàgg na te mett mett na lépp lu ci manqué ci nun ñii la waaye sëñ euh, sëñ Mor mi moom li mu santaane woon ëpp na lii jërë ngeen jëf ñu ngeen balaq auzu billahi mina seytaani rajim wala hawla wala xawta illa billahi alal asiim bi nee maa ngi nuyu bokki jullit yépp nee di sant nag nee moom ak cantam nee na ci bàyyi moon rekk la koy teg nee li tax mu di ko wax nag nee su ko waxee ba noppi ñépp dina xam ni loolu dëgg la ndax wax ci boppam su noppee ki la bëgg soo waxee lu dul dëgg du ko weddi waaye xol day weddi xol kenn moom soo waxee dëgg nag ki jubluwul itam day xam ni jubluwula la waaye li nga wax dëgg la xol rekk a koy bàyyi moor nee na daf koo suturaal sagal ko jàpp ko te yàlla tax ndax ndax sëñ Amidun Mbakke. bi mu ko jébbalee sëñ Moodu Maamun ba noppi ci guddi gi ci guddi la yeesal sama kóllëre moom la yeesal kóllëre moom ci sëñ Siidi mii toog ba ñuy waxtaan waxtaanu bëgg boole ba ñuy waxtaan waxtaanu bëgg a boole nee na moom dañu man sëñ du Baaxum génn naa ci toppante xalifa sëñ Moor Faasa moo ko ca génne moo ko jële ci sëñ moodu Mamoun mi gën ñëpp yilif ñëpp yilif leen teg ko ci loxol sëñ Amidou kon moom kër sëñ Amidou rekk lay mën a ne li ko Baye Mor sagale nag daf koo xamal ni ko foo ma foo ma dugal rek ma dugg fa ma ni ko sëñ Mor la mu waxaan rek lay yeesal ma ni ko sëñ Mor la mu rek lay yeesal bi sëñ Modou Mamoun wàcceeb liggéey sëñ Amidun ñëw daaru mi ngi toog moom sëñ Moodu ànd ak sëñ Amidun sëñ Mor Faasa dako ni wool ma Njaga Daawur Géy wool ma Moustapha Kan wool ma Mor Faama Jóob wool ma Lay Jóob ca Siin kan nee ñoom ba ñu ñëwee mu ni leen. ñoom ba ñu ñëwee mu ni leen. fi ma suuf pax ma dugal sama loxo. damaa dugal sama loxo ci mpax. ma bëgg ngeen dugal fi seen loxo ma bëgg ngeen dugal ci seen loxo yéen it. lu nuy matt matt na ca. lu nuy matt matt moo tax Baye Mor ba mu moo tax Baye Mor ba mu ko waxee. dama ko ni. dafa ko ni. foofee sëñ Mor dugalan loxoom de. fa sëñ Mor dugalan loxoom de. fa laa bëgg nga dugal fa sa loxo muy kër sa ñaamidul. mu ni ma bu subaa. lii nga ma wax. danaa ko def kon dina ko sant ngir lool yi nee na dina sant sëñ Siidi miit ngir noo defandoo lépp kër sa ñaan waaye sagal na ko rusloowu ma ci sa digganteeg Baay Moor ak bindeef yépp bu awan waneen yoon woo xam ni gën a lunu du ma mën a ñëw ci bisu Baye Mor de xam ni maa ko ci dugalal waaye sant na yàlla bi sëñ sii di melee nii fa tabaarakallaahu rakkam yii topp ci ñoom mel ni moom ndax doom yi sëñ Amidou dun jur man daaru salaam lu ko ump amu fa xanaa lu mu waxul rekk a fa am waaye ku sañan say doom ni doomi sëñ Amidun yi lay mel gémmañu leen nag day ñaan yàlla may leen fan wu gudd ak wér seytaane génn ci musal leen cim ndog def leen mag te sëñ Siidi mii li mu mën a seede ci moom sëñ Moodu Maamun dafa waxan ni Amidun dey mag ko dong laa ko gëne waaye sëñ Sidi mii toog wala no helaw jotaayam bii Baye Mor mii toog tey jotaayam bii Baye Mor mii toog tey sëñ Gaawaan mi meññ kii mooy way juróom sëñ Gaawaan mi meññ way juróom sëñ Alaaji sëñ Tàkko meññ way juróom bu jigéen sëñ Tàkko meññ way juróom bu jigéen sëñ Moodu Maamun meññ sëñ Amidun bu ñu ñëwoon fekk Baye Mor ci ginnaaw sëñ Sidi bu ñu ñëwoon fekk Baye Mor ci ginnaaw sëñ Sidi kenn du ci amu naqar kenn du ci amu naqar nee na loolu mën na koo waat nee na loolu la sant yàlla. maa ngi sant doomi Baye Mor yi. nee na mi ngi sant doomi Baye Mor yi itam nag. ndax ni ñu toppee ci moom. ak ni ñu àndee ngir yàlla. te noppam bii moo ko moom. du toog te mi ngi dégg. déggul ci ñoom lu dul noona kon mi ngi ñaan. ni mi ngi toppee ci moom. mu bañ a dellu ginnaaw. te Baye Mor ñu di ko ñaanal fan wu gudd. sëñ Mor nee na lu dul jeex amul de. sëñ Mor nee na lu jeex amul de. waaye mën naa yàgg. waaye mën naa yàgg. kon baay Mor. jataay bi yal na gën a yàgg. te seytaane génn ci. seytaane lu mu génn. mu rafet. maa ngi ñaan itam. yàlla def fi jàmm. ak xiiwal. ak ub juboo. te musal nu ci seytaane. musal nu ci lépp luy lor. kon sëriñ bi eh, sëriñ bi dana koy sant nag ndax ñi mu sant ñëpp dañoo mat a sant ku sant ki ñi nga xay ñëpp mat nañoo sant nga boole leenu cant dañu lay sant waaye sëñ du Bakhoum yow sant nan la mbooloo mépp la sant nag ñi yaakaar Daaru Bakhoum ak ñiy dégg Daaru Bakhoum ak ñi bokk ci Daaru Salaam bokk ci sa ñaami dun ñëpp la sant ndax bu fekkente ni ba ñu la joxee sa ñaami dun nekk nga fa di def sa yëfi bopp di def sa yëf yi gone bàyyi moor mii dina ko dégg te du la doy loo du la ni jiite ma kon wér ganga am ak pasteef ba nga am ak topp ga nga am ba tax bàyyi moor dégg ko xam la xam ni la nekkan ci sëñ Mor Faasa mi ngi ci yow mu ni la jiite ma loolu yi lañu lay sant nun ñi nga xam ni ne yaanu yilif nu nekk ci sa ginnaaw yaakaar la gis saw doxiin yal na ko yàlla may sa njaboot may ko say taalu bi waa sëriñ Modou sant nan la gërëm nan la jërë ngeen jëf jërëjëf ndax roof yàqul jën waaye sëñ Modou daa indi walis yi ba indi ko ba ko delluwaat te tijjiwu ko sëñ Modou neen léppay baax ndax lépp baax alhamdulilah <laughs> Cheikh Anta ko laaj nekk moom la sëñ Baba ne ko wooli ba Cheikh Anta moom tubaab la muy dukki dukki ak xelam yi di wër maam Cheikh ci ndigal sëñ tubaab ma nga fekk maama nga toog ci gàngu daayam ma nga sol reglet braaya teg ca manto sol chessia bu rëy soli bot ca melokaan wa ko yàlla bindee rek moom maam Cheikh Anta ak tedd nga jure yi ko sëñ Bamba defal ñu ne ko maam Cheikh Anta nga nële mooy borom dara jële ngay seen mu ñëw ba ci moom yegg jox ko loxo ne ko kaay wuy sëñ Bamba ñoom ñaar ñu wuti sañ Tuubaa tubaab yëpp taxaw ci pasal bi di xool maam Cheikh Anta yegg di daagañ ndànk di yegg si bi mu ñëwee ba ji parcelle bi yéeg ba jeexal ko franchir kal bi ñu gis maam saan taxaw tàllal bot ya sëñ mën jaay jóg sumi ko mu fel mbaxana ma fel kaala ga ne dees jàkkaarloog njaag dóor ba tiwam suuf raa wuti sëñ Bamba keroog lu rëy la tubaab bi yéemaat ci moom ci dara borom dara ji nga xamante tubaab yi fiñ ñu tegoon maam Cheikh ak li ñu xam ci maam Cheikh Anta ak ni maam Cheikh defal magam ju baax ji moo tax la 14 juillet 1945 bi Serigne Fall toogee xilaafa 1946 dafagul at ci xilaafa gi la ministre français de la colonie Vincent Auriol convoqué tous les chefs fii ci port Dakar Thierno Seydi Nourou Tall yor protocole ngan nga keroog bi sëñ Fall luy jóg li yoon wi rëy rëy sëñ Modou Mamoun rek la ne yaa may gunge sa maam dëgg la dëgg la manaan maam Cheikh Anta mu wàcc ànd ak madame Oriol soxnaam ma nga sol jupe ak corsage sol ay escarpin ñuy wàcc mu gunge borom këram mu sol costume keroog bi mu ñëwee ñu teg sëñ Fallou muy quatrième position ca rang ba ma ne ko mën naa jaadu ndax sa baay doon numéro 4 ca ndar mu nuyu sëñ Babacar si nuyu kilifa yi nuyu Seyna Issa Laye nuyu góor gi Pedre jóob ñëw ci sëñ Fallou keroog ku dul sëñ Fallou ak sëñ Modou Mamoun jox nga madame Oriol loxo. bi mu ko nee jéy loxo sëñ Fall daa doon ay loxoom ci dënnam Thierno Sène dafa tiit ba yuuxu ne ko ay Fallu Mbàkke mu ne ko lakkum diini ku wàññi diini. Thiel nag sa la woote fii ci champ de course ànd ak sëñ Modou Mamoun keroog la wax wax jure yi ñuy wax ba tey keroog la de rak mot rakkal mot jiba mbuut daraa da ba ndar keroog la ko sëñ Fallu wax c'était en 1946 kon ñu bëgg fab kàddu gi. jox ko boroom daaru salaam sëriñ Sidi mu jox ko sëriñ Cheikh naa rakkam mi porte parole di rakkam ju rëkk ci moom te bus ko def dara bismillah réew mi déglu leen ma ma ñëw siyaar ko baax a baax te feese war ma dellu tuub bayti sëriñ Moodu Maamun Mbàkke bismillah réew mi déglu leen ma ma ñëw si yaar ku mbaax a baax ta fee ma ma deltu bay di sëriñ Moodu Maamun Mbakke damay ko xet ci yow ne sëriñ Moodu Maamun du yab la Seex Moodu Maamun Mbakke garab la guy meññ doom Seex Moodu Maamun yaa sedd ker sa meññeef mi ñor Seex Moodu Maamun ma doo gasam sa kër tafaro jasak law bayu sëriñ Amidu Seex Moodu Maamun Mbakke bu defaree ba dëddu yaari gaayani jalañ yal nañ geesu yam ci yow te sàkk lawu Cheikh Modou Mamoun yeetal bu mag Cheikh Anta Tall Cheikh Modou Mamoun ñii naa gajoor ñi naan bawal ku munta fay man duma fay te sàkk lawu Cheikh Modou Mamoun Cheikh Modou Mamoun tëdd naa guddi nelaw Cheikh Modou Mamoun yee ma ci ay nelaw naa ma Modou waratoo nelaw del way Cheikh Modou Mamoun béyu nekk am na déemam gu muy fare man de Cheikh Modou Mamoun yow sama déem gi may fore béy wu nekk am na déemam gu muy fore Cheikh Modou Mamoun yow sama déem gi may fore xamee naa sëriñ bi ak sëriñ si kenn dootuma nax man de sëriñ Amidou Mbakke laa jàpp kenn duma nax ku sopp sëriñ Amidou Mbakke ne li ñu magal joo jële waay maa man de sëriñ Amidou Mbakke bi la yow laa jàpp man kenn duma nax sëriñ Amidou sëriñ Mbàkke kuy taxan ba far faru say ji tong tongu ñay boo yaboo dawal cey billahi sëriñ Amidou Mbàkke yaa di cey cey maa ngi jéngu maha tawajjuhal makaarihi liyaa baaqin xabaar bi zikrihi wa huwa liyaa an يسوقها لخيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كليتي صفت وصفت نبي mbokki sëriñ Cheikhouna nee na ginnaaw bu mu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi yëkkati kàddu gu tedd mu ngi yëkkati kàddu gu tedd gu bàyyi koo gi seen kilifa ñoom ñëpp muy Serigne Sidi Mbacke mu Serigne Hamidou di xalifa moom nag Serigne Sidi bu fi teewee dafay teewaale kàddu Darou Salam gépp tàmbalee ko ci Serigne Mame Mor mi nga xam ne mooy xalifa bu Mame Cheikh jaar ci Serigne Abdou Khadir Serigne Djili mii jëriñu ko Serigne loolu yi la yàlla dogal ci alxaaji Moor Géey ak sëñ Sidi diggante moom sëñ Sidi ndax alxaaji sëñ Mouru Maamun ba mu gërëm ko liggéey sëriñ Xaamidun ba mu gërëm ko waaye yemut foofu dafa fetliwaat ak laxasaayam ci moom mii sëriñ Sidi loolu yi alxaaji Moor Géey def nag mooy mooy baax ci lislaam mooy baax mooy aaday lislaam mooy aada ci yoon murid yi ñu nekk ndax saxaabatu rasul yi àndoon ak sallallahu alayhi wa sallam yonente bi yonente bi wàccee bi liggéey bañ jaaxle lool ñoom saxaaba yi te alxuraan ñëw gindi leen xamal leen ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaamu suñu borom la woon jaarale ci moom ay ndigalam. bu suñ boroom daan jaarale ci moom ay ndigalam. day day day génn àdduna ni ñëpp. day génn àdduna ni ñëpp moom sallallahu alayhi wa sallam. kon nag génn àdduna. kon nag yéen saxaaba yi na xam ne bis ni ki tey yéen tamit génn àdduna. waaye lislaam moom du fi jóg mukk. waaye lislaam moom du fi jóg mukk. ñu fetliwaat seen laxasaay. nee na ñu fetliwaat seen laxasaay. ci Seydina Aboubacar. ci Seydina Aboubacar. ba mu fi jógee ba agsi ci ba ni mu fi jógee ba ci Seydina Ali. niki noonu tam ci Serigne Touba. niki noonu tam ci Serigne Touba. bi mu fi bàyyi ko. fi bàyyi ko. ñëpp jaaxle woon. ñëpp jaaxle woon. yaakaaroon nañ duñ am ku mën nañ am ku mën a wut Serigne Touba. jàmbaar yi àndoon ak moom. waaye jàmbaar yi àndoon ak Serigne bi. ku ci mel ni maam Thierno Ibrahima. ku ci mel ni maam Thierno Ibrahima Fati. ak Serigne ak Serigne Gaawaan. ñooñu dañoo xam ne. ñooñu dañoo xam ni. jëmmi Serigne Touba nekkatu fi. jëmmi Serigne Touba nekkatu fi. waaye la Sëriñ Tuubaa doon dox moom dafi jóg bu mukk ñu ànd ñu ànd jiital Serigne Modou Moustapha ngir mu àggale liggéey bi fi mu àgg tey jii nii sëñ mu taxaa yàlla na fi yàgg te wi lool ñu ne kon loolu yàgg na ci lislaam yàgg na ci yoonu murit kuy wut lu baax moom sag wàcc mooy mooy rek nga wuy gi sa boroom borom dajeeg sa borom waaye li fekk yaa ngi ci kaw suuf wut lu baax du la wàcc ba mukk foofu la bàyyi moor xool ba tax mu fetli ak laxasaayam ànd ak sëriñ si di ko liggéeyal sëriñ si di xam gum xam loolu moo tax mu ànd ak njaboot gépp ànd ak koo xam ni nag day kenn sëriñ Hamidou di koo xam ne ku yàgg ak moom la. xam ne ku yàgg ak sëñ Amidun la. xam ci moom lu bëree bëri. te mu xam ci sëñ Amidun lu bëri lool. koo xam ni li mu xam ci sëñ Amidun yaakaar na ni njaboot sëñ Amidun xamuñu ci sëñ Amidun. waaw mooy sëñ Modou Baaxum. kooku nag mooy sëñ Modou Baaxum mii. te wax na ko léegi. te wax na ko léegi. sëñ Mor Faasa moo ko joxoñoon sëñ Amidun. sëñ Mor Faasa moo ko joxoon sëñ moo ko joxoñoon sëñ Amidun. waaye joxoñ boobee de. waaye joxoñ boobee de. moom bis bu dajeeg sëñ Mor Faasa. am nañ yaakaar ni bis bu sëñ Mourou dajeeg sëñ Mor yàlla na yeex. boobaa dana am ma durus mukk ci nee na boobaa sëñ Mourou durus mukk ci kanam sëñ Mor Faasa. ndax joxoñ boobu na ko ba mu mat sëkk. ndax joxoñ boobu sëñ Mourou ko ba mu mat sëkk. ñu ngi koy ñaanal suñu borom wéral ko. na kon nag ñu ngi ñaanal suñu borom gën a wéral sëñ Mourou. guddal aw fanam bu baax a baax. ndax moom daa bokk njabootu sëñ Amidou. nee na kon nag sëñ Sidi bi mu ñëwee sëñ Modou la àndal ak njaboot gi yëpp di seereel njabootu Baye Mor gi bi fi sëñ am jógee ba léegi lépp lu sëñ Mor gi daan defal sëñ Amidou rek da koo ful ay yoon yoon moom sëñ Mor kon nag sëriñ Sidi moom leen di seereel ngërëm gum ngërëm Alaaji Mor Gueye te ngërëm loolu day barkeelu rek ci ngërëmul ay maamam day barkeelu ci ngërëmul ay maamam ak baayam kon nag mu ngi seeral ngërëm loolu njaboot yépp nee na mu ngi nuyu njaboot gi moom sëñ si di leen ñaax yéen itam tàmbalee ko ci Mamadou Gueye mii di leen ñaax ngeen gën a góorgóorlu ndax ku am waajur mel nii ndax ku am waajur mel nii ah loo góorgóorlu rek doyul. ndax moom li ko war li ko war li ci ëpp def na ko. ndax moom li ko war li ko li ci ëpp def na ko ci li ko war. ñaan nag suñu borom yàggal ko. moo ngi ñaan suñu borom yàggal fi baax. waaye na ngeen xam ne lii tegu ci kaw. waaye yéen doom yi ngeen xam ne li tegu ci kaw Baye Mor. yàlla bu mu gaaw waaye bis bu jógee ci moom. yàlla mu gaaw waaye saa ci seen seen kaw la jëm. seen kaw rek lay tegu. kon nag na ngeen gën a góor kon na gën a góorgóorlu. gën a nekk benn. gën a nekk benn. te sëñ Amidou mii suñ kilifa. te sëñ Amidou Mbacke mii seen kilifa ñoom. dafa bëggoon lool njaboot gu nekk benn. daa bëggoon lool njaboot bu nekk benn. tàmbali te ci njabootu boppam la ko tàmbalee woon. te ci njabootu boppam la ko moom sëñ Amidou. kon nag ñun euh, suñu maam yi ñaax ngeen gën a góorgóorlu. kon nag sëriñ Sidi moo leen di ñaax ñaax yéen njaboot Baye Mor ngeen gën moo ngi leen tam. ndax xam na lu Baye Mor man li ci ëpp. ndax xam na lu Baye Mor man li ci ëpp. ci yéen rek lay bàyyi ñii lay bàyyi ko kon nag ma leen sant di leen gërëm ci loolu di ñaan suñu borom kattan na leen ngeen gën a jàppale Baye Mor ci liggéey bi bu baax a baax a baax ma leen sant moom sëriñ si di ci li weesu lépp ndax saa yu màggal Tuubaa ñëwee ngeen ànd ak moom ci liggéey bi bu màggal Daaru Salaam ñëwee noonu addiyee yi noonu kon nag sëriñ si sant na leen bu baax gërëm na leen ngi sant mbokk yi yëpp tam. nee na mu ngi sant mbokk yi itam bu baax a baax. fu ne mbokk jóge na fa. ndax fu ne mbokk jóge na fa. ñëw ngir ànd ak moom bis bi. ñëw ngir ànd ak Baye Mor bis bi. te moom jàpp na ne lépp lu ko waay defal jàpp na lu waay defal Baye Mor rek. moom nga ko defal. moom nga sant mbokk ngi sant mbokk yëpp. di sant dëkkandoo yi tam. di sant dëkkandoo yi tam. ndax wax dëgg yàlla yaatal nañ gan ñi lool. te yaatal googu tax na. képp ku fi ñëw ren bu déwénee nga sawar a képp ku fi ñëw ren rek déwén a ñëwaat ku ne gis nga bis bi yokkute gi ci am kenn ku ne gis nga bis bi yokkute gi mu yokk gi ci am loolu nag bu amee loxoy dëkkandoo yi loolu nag bu amee loxoy dëkkandoo yi génn ci ndax suñu yaatalutoon ndax bu dëkkandoo yi yaatalul woon yaakaar naa du demee nii yaakaar naa ne kon du demee nii kon sëñ si da ngi sant dëkkandoo yi leen gërëm di sant kilifa diine yi fi nekk di sant kilifa diine yi fi teew yépp imaam jóge na fi léegi kàddu yi rafet yi seere ak kàddu yi imaam yi rafet yi imaam seere ci Baye Mor. loolu nag euh, dal gën naa dal suñu xel. loolu nag gën naa dal xelum sëñ Sidi baax. ndax euh, nit boo amee ci barab ku bokk ci yow. nit ndax boo amee ci barab nit ku bokk ci yow. ñuy ñëw di seere ci sa kanam. ñuy ñëw ci di seere ci moom rafet ci sa kanam. loolu faaw mu sedd sa xol. loolu faaw mu sedd sa xol. moo tax loolu sëriñ si di xolam sedd na ci lool ci kàddu imaam yi jógee ci moom jëm ci Baye Mor. nee na sëñ Sidi mu ngi sant mbooloo mi baax a baax di leen wax kullu aami wa antum bi xayrin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mel na ni kàddu yi la sa mag santoon nga jotal ko ko mat na sëkk fa tabaarikàlla yàlla na yàlla guddal saw fan dëgëral sa xam-xam te wéral la mbooloo mi ñu tàllal sëriñ bi defal nu ñaan na ñëpp tàllal seen loxo te fas ci la ñu bëgg. amiin yaa rabbal alamin amiin amiin yaa rabbal amiin amiin